bi ngay dugg si musique am na ñoo fi fekkoon mën nañ ci lim ku mel ni Youssou Ndour Omar Pène Baaba Maal ay Ismaïla Lo ba ci ki gën a mag sax tey muy Père Ousa Diallo moom ci ñu koy nuyu di ko nga ñëw tey ci ñi nga xam ne ñoom lañ la xamee loon muy lim soo jamono ay ñoom Fallou Dieng ay alin Mbaye Nder ba wàcc ba ci suuf ñooñu tey Pape di dugg ci lii ak ñi la gën a féete suuf say rak Pape ndax ñooñu waxtaan na ak ñoom ci li nga xam ne moom lay dugg tey muy bis bu mag. waaw euh, waxtaan nañ ci ak ñëpp. boobu ba léegi ñu ngi ciy communiquer ak sunu papa yi ñu ngi ciy communiquer ak sunu rakk yi. Mhm. ñu ngi ciy communiquer aussi ak sunu mag yi. Mhm. ñu ngi ciy communiquer ak sunu jigéen ñi. ñu ngi ciy communiquer ak Sénégal. Mhm. dama wax ni bés bi muy événement bi du événement wu Pape Diouf mais événement wu réew mi la. bésu Sénégal la. looloo waral ñu jël sport bi boole ko ak musique bi boole ko ak culture bi yóbbu ko France ngir wone suñu culture réew ndax xam nga ne bu bër si jotee jigéen ñi sañse ba rafet sol seen robe yu yànj ah góor ñi aussi def ay costume yu rafet wala ñu def ay ñetti abdu yu macha allah donc ñu àndandoo dem daje fa artistes yi daje fa mbër yi daje fa sportif yi daje fa. Sénégal la loolu mooy Sénégal. ñu wane ñun suñu culture réew. donc nit ñu baax ñi képp kuy nit ku baax. ñu daje foofu bégee vraiment defaale forum. forum boo xamante ni vraiment pour l'émergence ak suñu sponsor leader. Summer Investment suñu xarit Marcel Diagne. nga xamante ni tey Sénégal dafa nekk ci yoonu soppeeku. Hmm. Sénégal dafa nekk ci yoonu émergence. Hmm. ndax man dama doon toog di rêver di dëkk ci ay tour ay cent vingtième étage ay cent trentième étage kon loolu vraiment mbégte la euh, promoteur immobilier yi di jóge fu nekk ci àdduna bi ñi di jóge Dubaï ñi di jóge Amérique ñi di jóge Sénégal ñi di jóge Europe tu vois donc vraiment ndaje la rencontre la kon loolu je pense que ni mbégte la cadeau la pour les Sénégalais. Mhm. mais am na loo xam ne tamit fan yi dañ ko déggoon des laaj bi moom des fois parce que nit ñi ñooy tax ñuy laaj laaj yi parce ñu gis fan yi ci internet bi ñu Pape ne na invité ñu ne moom nee na du ñëw Pape ne même bu ñëwulee sax invité na ko. loolu ndax waxi Pape Diouf la wala diggante Pape ak Wally parce que tamit wax ji dafa xaw a foofu. waaw moo tax xam nga sax wax bu bëree day bijj doye di. dëgg mais ñun la Sénégal ñun ñëpp ko bokk. Mhm. invité naa ñëpp. Mhm. ñëppay ñëw incha allahu rabbi ñoo bokk ndab li dara mosul ñaaw te dara du ñaaw c'est le Sénégal Sénégal réewu jàmm la loolu bëggatuma sax ñu ciy ñëwaat muy indi polémique c'est le ki qui ñoom ñëpp sumay frère lañu ñëpp laa invité ñëpp nga invité waaw ku ñëw uh-huh. yaa ngi ci biir ku ñëwut amoo jot mais ñëpp xam naa ne ñëpp am na nañu yéene pour ñëw jàpp ci bés bi Amin.

lamb foo